yeewu xool jant bi xalaat sama njaboot sama xol féex ci laa wàcc yem ci ñoom nag gën a lii yëpp nag enema Sanders seen complice ko waral ay waay Samba xoolal ma farin farin maa fi mu génn rek li neex na waaye waaye nag ale boo gis am na retour tey laa leen nar teral ba kër gi wàcc ak spaghetti pasta mi rek li ma ci nar ba mu sotti. méchoui bi moom vermicelle rôli bu ne muut laa ci fas yéene foofa toj tey ma fisalati sama mbégte woon samay dëkkandoo fi ma mënee. ci mu xam sa pasta mi bi nag laa leen jommalee amul morom dëgg neexul enema Sanders moo fi ne waay. Sénégal yëpp ñoo àndandoo ni pack food dara fayu ko suñu équipe yëpp noppi nañu loo jënd ci moutarde ak vinaigre pack food ak suñuy pat ñu daal di la koy livré fa nga ne xoolal suñu arsenal suñu équipe yëpp pare nañu lépp noppi nañu foo ay mën a ne ñu livré la li nga xam ni moom nga jënd ci waa pack food pack food nag ah dañoo mënee suñu boor laajal lal lu mu togg mu neex lu mu togg ci jën mu dem ci yàpp mu dem ci ginaar mu dem ah pack food dëgg dëgg dara fayu ko produit pack food yi qualité supérieure la lii dara fayu ko فآلا وترهيبا بلا mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen ñaareelu numéro bu waañ wi ñu ngi fii ci Daaru naan ci waañ numéro 4 bu euh, wilaya yor ànd ci ak comité d'organisation maanaam ci gàttal comité d'organisation bu Grand Magal de Touba ñoom la ñuy sekk si fii daayira bi di wilaya yor lépp lu jëm ci wàllum restauration ak hébergement euh, seriñ Ibra Kane mi jiite lu jëm ci wàllum restauration maanaam gan ñeeg togg yi moom la ñoom ci seen biir émission waañ wi euh, waañ wi ñu taxaw sànq présentation bi maa ngi naan bi mooy waañ numéro 4 lan moo indi numéro 4 ndax mooy ñeenteelu waañ euh, waañ wi kat lañ ko samp lan moo tax ñu samp ko. Euh, jërëjëf soxna Faty waañ wi ñu ko sos 2008 ci teewaayu Cheikh Amadou Lamine moom Cheikh Amadou Fadal di ñaan yàlla mu yokk ay leeram taan ci barkeem 2008 lañ njëkk a taxawal comité d'organisation organisation d'organisation tànn kenn ci ay njabootam muy Serigne Cheikh Marème moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Baara mu ne moom li muy liggéey wilaaya la koy àndal bi mu jëlee nag comme ay kuréel lañ ay ay waañi waañ lañ il faut nga identifier ko ñu def waañ un waañ deux waañ trois waañ quatre tey nga ñëw fi waañ cinq ba waañ six donc waañ six ñu ngi ñaanal soxna tuuti loo moom sëñ Modou Lo Mbéri ndeysaan moo yoroon wàññi siis ñaan suñ borom ndax waxtu wi daaw mi fi jiitu ji na te ñun ñu fi des kenn xamul kañ la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla njéggal ak yërmande ci barke bis bi waaye ci barke maamam ak bàyyi waajuram wu tedd wilaaya moom bëggoon nañu quand ku leen fekk ci seen waañ euh, euh, ñu waxtaan tuuti ci wilaaya ndax lépp lu jëm ci restauration ak hébergement euh, ñu ngi ko dénk teg ci loxo daayira bi nga xam ne moom mooy wilaaya mën ngaa dellu si waat rek lan moo ko waral ak euh, fan la jóge ak lan moo tax lépp lu jëm ci hébergement ak restauration saa yu ko tuddee Touba rek xel daj wilaaya. daayira bi di daayira wilaaya ba ko Serigne Cheikh di sos liggéeyal Serigne Touba rek moo tax du daayira kër wilaaya du kër du wilaaya Serigne Mbacké Sonlo wala Serigne Cheikh Mbacké wala du wilaaya ak Serigne Touba la. ndax borom bi ko sosoon di Serigne Cheikh dafa waxoon ne ittihaadu atbaa'il xadiim di taxawuni wa tamasuki bi dinañ leen xawee daayira kuréel bi nga xam ne yàlla rek ko moom ak Serigne Touba. moo tax nag kuy liggéeyal Serigne Touba rek sa xel dem ci wilaya bi yàlla dogalee sëñ Mbacke son sëñ Cheikh sosoon daayira en 1965. biñ demee ba 1987 sëñ bi xam ne gone ak jigéen ku leen yor te yëngaloo leen àdduna yëngale mun na naa jël sama nit organiser leen. yaakaar naa lii ni nga ko waxee léegi ku restre président de la république. defal ko xalifa général de Mouride yaakaar naa matal nga ndax ñaan ñi jàpp na ñu ëpp doole ci àdduna te président yi fii nekk ci Sénégal moom yàlla dogal na ku ci nekk restauré nañ moo moo xam muy président Abdou Diouf moo xam muy Abdoulaye Wade moo xam Macky Sall mi fi nekk bu yàlla dogalee nag euh, kuréel gis jóg nee nañu def xel seen xel dem ci wilaya loolu rek kuréel teni bi ñu yor nag nit mën ta ñàkk teni tey boo demee TFM CFM euh, euh, RFM ku nekk am nga loko bu lay xamee wilaya liñ koy xamee mooy bax ak palmaan kaala gu ñuul ak baxa bi mooy sembulu wilaya loolu li ci sëñ bi jubloon rek mooy xam ne adduna day dox boo xoolee tën bi boo xoolee tuuti ci asamaan bi moog tën bi ñoo nuroo kon sëñ bi am na lam lam ci jublu moo ko xam mais ñun buñ ko solee fierté la ni am mi ngi mel ne militaire bu sol tën taxu ci diggub tali waaw jërëjëf euh, am na solo xam naa dañuy dem xoolaat euh, ñeneen ci biir waañ wi maa ngi seen fële soxna Bigué ma ngay yëngal ndax mooy jëriñu waañ ñu dem waxtaan ak moom asalaamaaleykum. salaam soxna Bigué maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw soxna Fatou Dieng maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. yow yaay jëwriñu waañ soxna biige ma bëggoon xam sa liggéey ci waañ kañ nga ko tàmbali fan nga jàngee liggéeyu waañ liggéeyu kër. waaw liggéeyu kër moom maa ngi ko jàngee Daaru Xuddoos kër Sëñ Axma Tundoo di. Mhm. soxna maam Xari Joob moo ko jàngal. Mhm. waaye nag bi may ñëwee ci Serigne basiiru ñaan mhm. fekk mu nekk ci organisation wilaya mhm. daf ma koo gën a feddali mhm. ma nekk di jaayante ak moom liggéey rek te yàlla tax. Uh-huh. kañ nga tàmbali liggéey ci waañ yi ndax gis nañ ne li nga wax Darou Khoudoss foofu nga jàngee liggéey mais waañ fii kañ nga fi tàmbali dugg bañ la fiy def jëwriñu waañ. xanaa bi nga xamante ne ni ci ndigalu Serigne Ousmane Mbacke moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma jox nañ ko liggéey bi di organisation bu màggalu Touba. ci lañ ma ku ñuy wax sëñ Cheikh Mariam Mbacke Euh, jox ma waañ wi ma koy toggee sama kër boobu juróom benn waañ la woon man may toggee sama kër bi nga xamee dem nañ ba nga xam ne euh, gan ñi demee fa ëpp fii li ñuy dal te daar xuddoos day xat pour bu buñu dee togg daar xuddoos di indi fii ñu boole waañ yi bi ñu boolee waañ yi léegi nag man ñu def ñett waañ waaw bi ñu defee ñetti waañ mu xam ne sama waañ ci lay duggaale ci biir ma ñëw fii ci garage du Dakar Daaru Marnaan fi lañ nekk di togg waaw waañ wi màggal gi egseegul parce que tey la suñu ñaareelu numéro mais gis nañu mbooloo mi day bari yéen bu dul màggal sax léeg-léeg ñu ami gan ngeen togg kon seen waañ yéen day teel a am teel a am mbooloo waaw ñun daanaka 15 safar la ñuy tàmbali dëgg-dëgg waaye ñu bañ tàmbali ca première safar ba lañ tàmbali woon di togg may toggee sama kër di indi kër sëñ Touba tey nag day 15 safar gan ñi am fi benn programme bu ñu war a def nga xamante ne gan ñi dafa gën a dolliku tey ñu tàmbaliwaat fi ne ñun tàmbali nañ daal mhm. waaw tàmbali nañ Euh, tey menu bi lan la lan ngay togg soxna bi man lakk laay togg nii mis wi mis wi laay defar nii su ma paree maa ngi jàll fee ca ceebu naar ba moom lañ tey nële bee ceebu ginaar la moom la ñuy togg bu ànd ak xar après ñu togg ginaar kese pour spécial ndax xam nga gan ñi ñëw kenn ku ne ak sa régime ah, kenn ku ne ak la nga bëgg. kenn ku ne ak la nga bëgg. mi mel ne nga dem ci benn restaurant restaurant 4 étoiles wala wala 5 loo bëgg rek. waaw li ñun nag. duñ nag gan looy bëgg dañuy togg suñ palaa yu bari tegal gan lum choisir rek xéwlu ci ndax sëñ Touba yaatoo noonu waaw. moo tax ngeen di ko def. moo tax même naar yi fi ne seen ceeb yaa ngi ceebu naar la ñuy def boo xam ne du am dara loo xamante ne ay kaani laak poobar ndax mooy seen régime lakk bi tamit am na ñoo xamante ne duñ lekk ceeb ndax jabet yi dafa bari moo tax ñu def palaat yu baree bari. moo tax ngeen def ko waañu kañ ngeen fi tàmbali ñëw euh, ban ban waxtu laa bëgg a xam ndaxte am nañu bu màggal gi jegee moom daanaka da ngeen di fanaan ci waañ wi. daanaka soxna Fàjjeng fanaan ndax dañoo bëgg añi teel te dañoo bëgg tamit suñ liggéey gën a gaaw te booy togg da war a jël sa temps fi ne dañuy fanaan ci waañ rek ba bës set waaw fu ñu war a fu nga xamante ne dem nañ ba gëmmentu rek bay suñu bopp ci bool yi waaye duñ dugg ci néeg suñ néeg saage rek lañ fa teg waaye pare nañ bu yàgg ñu ngi ci waañ wi kañ ngeen ni euh, yóbbu ndax dafa am organisation boo xam day ñëw yóbbu bool yi ak yooyu nan lay demee waaw li muy demee mooy suñ Cheikh dafa organiser boppam ba léppam dañ ko organiser bokkut ak waa événement yi nga xam ne ñooy accueillir gan ñi nga xam ne suñu paree buñ defaree suñu bool pare ñoom la woo ñu dem yóbbu añi gan yi ndax lenn lu ñu dafa am ab équipe ndax mbooloo moo xamante ne la kenn ku nekk la ngay liggéeyee ñun suñ toogee ba pare ba defar ba pare dañuy woowaa waa hébergement ñu ñëw jël seen i añ servi ko gan yi. parce que dañuy fàttali ne yéen yéen a yor lépp lu jëm ci wàllu restauration ak hébergement euh, ci màggal ak Touba soxna Bigué dañu ànd ak euh, ñaari sponsor kenn ki di waa NMA Sanders ñu tàmbale ci ñoom ñu indi leen farine pâtissière parce que gis nañ ngeen defar ay beñeek léeg-léeg sax ngeen togg dama daa euh, vermicelle ak ak ak ak li nga xamante ne si moom mooy macaroni bi kon lan ngay wax waa NMA Sanders maa ngi dégg sax ngay da ngeen def ay poulet pané xeet googu yëpp. waaw waaw dañ a a baax di leen gërëm nañ yokk ba yëg ko te sëñ Touba mi tax ñuy def nii yàlla nañ bu ne yàlla nañ yokku ba yëg ko mhm. ndax li ñu fi indi lépp macha allah am na fi waaye soxlo nañ ko ndax fëriñ bi dañuy pane lépp dañ koy def kon ñu ngi leen parce que spaghetti bi dañ koy baax kii defar di moom it di ko orné macha allah li fi indi paane raxasu yi dañ ci tànk raxasu vinaigre bi dañ koy mariné moom mu tàdd bi vermicelle bi nag bi moom mën nañ ko boole ci ceeb bi mhm. tayaale ko suuraale ko fii lépp lu fi ñëw lépp am njariñ macaroni sama mbokk séeréer yi bëgg nañ ko tamit dañuy koy baxal ba mu egg ndax boo sonnee tiim ci yàpp yi daanaka macaroni bu la neexee def ci meew am na bu la neexee tamit nga def sa macaroni ak sa saf-safal waaye lépp a fi mën a nekk ndax euh, vermicelle lu xeetoog vermicelle ak euh, macaroni lépp la mën a dem ndax suñ neexee def soom bi meew waaw dama am sama benn yaayu séeréer boo xam ne dafa bëgg macaroni daf ma ci doon daf may jox ba ma mujjee bëgg ko macha allah ndax dafa neex ñu euh, également euh, bu weesoo enema wa pak foot ñoo leen jox corne bœuf moutarde ak euh, vinaigre corne bœuf it baax na ndax buñ orne ba pare dañ koy dag orne waale ko ci biir kii bi mm. suñu xëyee tamit ñu nekk ci waaju sonn mën nañ cee defar ndékki mm-hmm. kon macha allah ñu ngi leen di ñaanal nañ yokk ba yëg ko te bu déwénee lépp luñ lebal sëñ Touba yal na la ko sëñ Touba fay ndax sëñ moom am na fay xale yi superviser leen ñu raxas euh, salade bi ak yu mel naka la ñuy xale yi di organiser wu ci liggéey parce que gis na également ne xale yu ànd ak yar lañ yu mën a def li ñuy liggéey lañ également. waaw waaw macha allah ndax léeg-léeg ba la ñoo tëdd. minuit day pasé te it 4 heures de matin laa leen di yee. ñu jóg nekk ci seen liggéey. ñii di saaf pombiteer ñii di raxas ginaar ñii di raxas salade. te ñu ci bëri samay sët lañ. ak sama njaboot. man daal mënuma dara soxna si lu dul sant yàlla. sant suñ borom kañ nga kañ nga jógee Jurbel. waa démb lañ fa jógee nag waa demb lañ ñëw. te ñu ngi toog ba màggal gi. waaw ñaan suñu borom itam alxames. la ñuy delluwaat ca kër ya bu neexee yàlla. waaw lépp ànd ko soxna Biége ci jàmm ak salaam. mu mel ne sawaañ waañ euh, jëwriñ am na organisation de. fi fu nekk ak lañ fay def fii la ñuy daxasee salaat fii soble euh, fii moom kenn du laajte. Euh, kii mooy defar ndawal gi macha allah. ndawal yi waa kii moom. moom it section la dëkk. wa xale yi jàmbaar lañ fi ne boo leen gisee sax da nga leen teg ay bougé macha allah liggéey sëñ bi rek a leen ñor. liggéey sëñ bi rek leen ñor. Uh-huh. gis nga xar yaa ngi nii. da fekk ñu dagg ba pare waaye gis lii lépp ñoom ñoo ko dagg. Uh-huh. mi xale yi jàmbaar. yu am pëseef. waaw d'accord ñu digg sa euh, diggante ak euh, wilaya ak ni nga nekkee ci waañ wi ànd ci comité organisation bi di def lépp lu jëm ci wàllum restauration d'abord li ñu la dénk mooy lu jëm ci defar ndawal bi. waaw xanaa di sant yàlla bu baax a baax rek. nga xam ni lii yëpp dañ koy sant Sëriñ Tuubaa ndax dañuy ay ndaw yoo nga xamante ne dañ ñu fee ñuy liggéey rek. Mhm. maanaam kon maanaam ci lu ñu woo rek. dañ cee ne xanaa lii sax du sunu mënin mais leneen loo ñu woo rek ñu ngi ci. du ma si du ma buusee dama cay nekk nii rek waaye amul loo xamante ne wilaay def ko ci ñun ci loo ñu woo rek wilaaya mi def na ko ci ñun te dañ koy liggéey ci kàttan suñu borom. merci beaucoup sëñ Cheikh soxna Bigué euh, dem na waaye waa wilaaya ñëpp a ngi taxaw bokk ci comité d'organisation Baye Ibra bi ñuy tàmbali euh, moom la ñu fi fekk euh, ñu ngi nii nag jeexal nañu li nga xam ne moom mooy waañ wi di jaajëfal sunu téléspectateur yi ñu àndaloon waaye itam di jaajëfal sunu ñaari sponsor muy waa NMA Sandeuse ak waa Pack Foot di leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro waañ wi ci Touba Mbacké mu soxal li nga xam ne moom mooy grand magal de Touba ñu ngi nekkoon ci waañ 4 ci Daaru naan ëllëg incha allah ñi ngi dem feneen fu ci mel ni Allier wala sax yeneen i gox fii ci Touba Mbacké jaa ngeen jëf. seen